mooy sama wàll bu amee mu doy nu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma manit doy naa ko man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy xeetu ko ki mbaawo mbàkki taxaw fi naa sa mbaaki dem ba